muy nag euh, kër goo xam ne sax euh, ki nga xam ne euh, moom moo doon wóotu liggéey yi moom mooy Cheikh Mamour Insa Diop di mu xadam kon moo doonoon entrepreneur bi nga xam ne kon moo doon wóotu liggéeyu boobule kër moom Cheikh Mahi sax ba mu koy daloo kon ànd àndoon na ca ak kii di Cheikh Mamour. Insa eh, Diop ci ëllëg sa nag di samdi njiitu réew mi Macky Sall dem na foofu foofule ca kër gu bees googu nekk ci sebi kotaan ziara ki nga xam ne moom mooy xalif eh, général bu na Baye di Cheikh eh, Mahi ibrahim Niass saafante ak moom Souleymane Ndéné Ndiaye démb gannaaw bi ñu ko invité ci émission Jury du dimanche bu RFM moom nag dafa xamle ne daal mënul nangu ñu amnistier kii di Karim Wade ak xalifa euh, Sall ba noppi nag kii di Ousmane Sonko euh, ñu bàyyi ko moom nag euh, nee na daal ab réew bu amee fu mu toll jéggale dafa war a am mu ne donte nag njiitu réew mi Macky sàll moom la àndal mu ne nag dafa jàpp ne kii di Ousmane Sonko dafa war a bokk kon ci yële élection ba sax nee na mu ngi laaj daal ñoom ñëpp nañu bokk ci boobule. élection nee na daal euh, organiser élection kii di Ousmane kii di Khalifa Sall bokk ci euh, Karim Wade bokk ci di Ousmane Sonko bokk ci loolu ab injustice la ko jàppee. ba léegi ci mbirum Ousmane Sonko la ñuy desandi waa partem nag di Pastef dañoo génne ab communiqué di xamle na nag moom Ousmane Sonko dinañ ko investir muy seenu ba candidat ci élection présidentielle bi ñu dëgmal ñu ne loolu nag dinañ ko amal le 15 juillet. buñ sukkandikoo kon ci communiqué boobu nga xam ne waa Pastef génn nañ ko te suñu naataango yu RFM fësal ko moom Ousmane Sonko nekk lu yàggul dara ab entretien bu mu doon amal ak waa France 24 xamle na ca ne moom euh, ba léegi daal euh, éligible na maanaam mën na bokk ci boobule élection présidentielle donte nag euh, fi mu nekk nii nag ak ak bokkam am na lu ca euh, wóorul ndax nag euh, fi mu nekk ni xam ngeen ne dafa am ñaari daan yoo xam ne yoon daan na ko ko diggam ak ak Mame Mbaye Niang mois avec sursis ak diggam ak Adji Sarr bi nga xam ne ñaari atu kaso lañ ko ca tëj moom Ousmane ko sax lu ëpp weer a ngi nii mënul génn këram ndax nag ab dispositif sécuritaire boo xam ne waa takk der yi teg nañ ko fa loolu nag tax euh, ba ñuy naan ndax dina teew ci boobu la boobule cérémonie d'investiture am déet Histoire Afrique dañ koy tàmbaleek 63e session bu conférence chef d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest muy euh, CEDEAO moom nag jeex na euh, démb bokk na nag ca dogal ya nga xam ne gën na faa fës ki nga xam ne moom mooy euh, Ahmed Bola Tinubu di njiitu réewu Nigéria moom nag la ñu tabb fi mu nekk nii moom moo jiite CEDEAO moom nag bokk na ci lim njëkk ne dina ko xeex euh, ci ab mandam li nga xam ne nag euh, moom mooy changement anti anticonstitutionnel maanaam daal na ñuy jëlee ay constitution ci ay réew Afrique euh, di ko soppi mu ne loolu kon dina ko xeex ndax xam ngeen yenn saa sax réew Afrique yu bëri dañuy gis ne ay soldats dañuy jël nguur ga wala sax ay ay ay ay wala sax kon ay constitution yoo xam ne dañ leen di soppi mu ne loolu nag dina doon loo xam ne dina ca liggéey bu baax a baax. Ali Bongo di njiital réew Gabon moom nag euh, xamle na ne dina samp ndëndëm ci élection présidentielle yi nga xam ne ñu ngi ko fay waajal vingt 26 août bii ñu dëgmal bii nag day nekk kon ñetteelu yoonam muy bokk ci élection présidentielle bëgg a jiitewaat kon réew moomule gannaaw bi nga xamee ne sax fukki at ak ñeent. mu ngi koy jiite moom Ali Bongo toll si euh, soixante-quatre ans moom nag partem war na amal ab congrès euh, tey bésub lënd bi di 10 juillet foofu la ca capitalu Gabon xibaaru sport lañ koy jeexale fédération sénégalaise de football dafa xamle nag bésub tey bii ne équipe nationale bu Sénégal dinañ amal ab match amical euh, seen digg ak réewum Algérie ñu war ko amal nag le 12 septembre fii ci Ndakaaru bu 19h jotee